Abrazo, Fe. bi sifla na ak Laurent Ndiago Laurent Ndiago rakk ci Liss Ndiago ba ngay arrière bu Siteu wan kanam bu Siteu teg na ko choc bu Siteu teg na ko choc Laurent Ndiago bu Siteu le combat tant ak bu Siteu Laurent Ndiago mi ngi génn saaku yi bu Siteu teg na ko choc andi na ko xeex andi na ko seytaane Laurent Ndiago génn na saaku yi ña ngay xeex arbitre sifla ñuy xeex la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa cay bi combat bu Siteu mayu ko dara avertissement pour Laurent Ndiago Laurent Ndiago am na avertissement arbitre bi ba mi ngi waaj a soufflé ndeysaan combat bu neex la xool leen amateur yi ak supporters yi bu Siteu mayu ko dara bu Siteu mayu ko dara Laurent Ndiago moo wan ginnaaw bu Siteu moo ñu wan kanam combat déclenchement est-ce que dina feral ay rongo magam di Liss Ndiago mi ngi jugee jàmm gën si bu Siteu ma nga jugee école de lutte Mor Faram ànd ak ñoom Boucher. ndeysaan écurie guy gi massa coono guy gi attention jaako Ndiago bu Siteu da kay bañ may confiance mi ngi arrière bu Siteu arrière Laurent Ndiago arrière aat na ñaari yoon arrière na ñaari yoon arrière na ñaari yoon est que tayu est-ce que li muy def tayu ko est-ce def du stratégie est lii du naxee yóbbu na ko ardo di ñamal na ko di mooy ñamal ñamal na bu Siteu waa kii nan la ko ñamalee am nga ñaari avertissement Laurent Ndiago am ko ñam ci bet dañ ko ñamal bu dem ardo gaaw nga nàcc de diggante Laurent Ndiago ak bu Siteu bu Siteu tegaat na ko choc bu Siteu tegaat na ko choc da ngay ñamaat de Laurent Ndiago ma ngay arrière rek armé loxo bi mi ngay xiiral rek li séeréer yi wax yopp sam kam xiiral yopp sam kam xiiral su dooree day dal attention seere na de bu Siteu seere na de Laurent sànni na waat benn droite bu Siteu fayu na da ngay bañ a may confiance raak raak ba mu neex booy xool bu Siteu moo gën a am volume wala boog Laurent Ndiago moo gën a am volume bu Siteu bu Laurent Ndiago mi ngi xeex. nekk ci corneru géew bi angle lay bëreeg moom angle angle njaago <laughs> wala angle séeré wala angle tukulóor wala angle lawbe ndaw bëri tànn pér ndaw lëmbal gu metti waaye bi xeex bu tar lay andi ñu ngay leewtoo léegi bu Siteu tëj na ko ci angle ba angle lawbe ña ngay ña ngay di naxante bu Siteu mi ngi koy teg choc Laurent Ndiago sànni na bu Siteu léegi mi ngi sóoraale dóor yi ñaw ñaw dalaa ñam ci pet nga naaj Laurent Ndiago mi ngi dóor Laurent Ndiago xalaat tey dóor mu daanu la andi Laurent dóoraat na mu dal eh Laurent mi technicien la de Laurent Ndiago il n'a pas droit à ma ngay duma ma ngay duma nag e bu Siteu fayu na attention ña ngay dóorante xeex e xeex arbitre sifflé na arbitre sifflé na bu yàgg appuyer Laurent mi Laurent andiwul jàmm de ay eh waay bu Siteu demande na Ardo waay bu Siteu demande na Ardo Laurent Ndiago yóbbaat na ko Ardo laay lay la laa yéen tey Laurent Ndiago andiwul jàmm de tey kii andiwul jàmm de tey Laurent Ndiago andiwul jàmm de ay eh waay bu Siteu andil nañ la xeexu Ndiago waay ay eh waay bu Siteu am nga problème waay ana waa école de lune Mor Fadam arbitre ba dugg na ci biir géew bi woo ko ña ngay wax moom ci biti mooy wax moom Matar Ndiaye soo manager bu Siteu mi ngi dem Ardo mi ngay taxaw di faju Laurent Ndiago mi ngi koy xool Laurent Ndiago nee na gars yi def leen ndànk dama koy duma ba mu naaj dina naaj bay bëgg a dee ma door koy daan bu Siteu dellu si na waat ay eh, waay ron ron ron Laurent Ndiago am na ñetti avertissement e bu Siteu demande na Ardo te yóbbu nañ ko Ardo waay ma ngay naaj ay eh, waay bu Siteu waay e waay pigeon yaa ngay naaw waay dañoo jommi Modou Anta sàcc na pigeon bi <laughs> reporter bu Siteu Ardo di faju Laurent jaago ngi taxaw di ko xaar nee na ko boo ñëwee ma ñamaat la jam naa la ñaari yoon ngay naaj ci di faju Laurent jaago mi ngi wax ak ay coach am ak ay supporter am neen leen taxaw day rek xaar ma sif la na waat diggante bu Siteu ak Laurent Ndiago léegi nag bu Siteu da ngaa war a taxaw ci digg géew bi waaw eh Laurent sànni na Laurent andiwul jàmm de Eh, waaye dil dañ ko xeexu njaago waaye xeexu njaago ca àngal lawbe léegi jéego nañu àngal lawbe ña nga ca biir géew bi Laurent Ndiago sànni na droite gidal tànk day joor day xeex door a bëre bu Siteu pied gauche normal gars yi nee na normal ak fausse garde amul waaw xaw ma fan lañ ko jàngee ña ngay leew too ñoom ñaar. Eh, bu si de xeex bi jaarul yoon bu si de li ngay xeex jaarul yoon jàppante nañu léegi bëre feeñ na léegi bëre day feeñ Laurent Ndiago mi ngi dóor ay uppercut Laurent Ndiago tey andi na kàttan ak xeex de xeex gu tar ma ngay dóor rek ma ngay duma rek ma ngay dóor rek dóor yi sax man dama koy yëg Laurent Ndiago ak bu si de bu si jàpp na loxo gauche bi fàqat. et euh, bu Siteu repot na euh, gauche di genou gauche Laurent Ndiago moom ma ngay xeex rek xeexu Ndiago yi xeexu Ndiago du jeex ay waay boo leen attewul jeex boo leen si waxul du jeex da ngay doonante ñoom ñaar bu Siteu defal ndànk ak say téere yu bari mën ngaa jumloo sa bopp wala téere yi téere laa bari li nga takk daa bari ma ngay tekki di sànni ay waay bu Siteu ñam na bu Siteu fayu na ak ay percute a ah, teq na ko bu Siteu effacé na ko daf ko teqoon bu Siteu effacé ko arbitre toogal arbitre arbitre joodo arbitre joodo voilà merci beaucoup a ah, Laurent Ndiago door na ci bopp coup irrégulier ma ngay dooraat a ah, Laurent Ndiago mi xanaa tey daa mer xanaa tey dañ ne ko del dóor rek ils ont mobilisé bu Siteu fayu na de waaw waaw door fayu le rajo ay door na ko mu daanu booy da doon daanu mooy yaa yooyu tuuti mu daanu bu Siteu nee fayu naa laay la ah, dafa tërëf ñam nañ ko waaye ñam nañ ko ay waay xool leen yi xool leen yi it sont contents ils sont contents les supporters sont contents ce sont les supporters de bu Siteu ndeysaan kontaan nañu parce que seen mbër dafa fayu arbitre bi sifflé na waat ñoom ñaar ñu ngi xoolante arbitre nee na ee eh, eh, waay Laurent dem na ardo waay ee eh, door fayu waay ee door fayu Laurent dem na ardo Laurent chez ardo la njaago ñu ngi koy faj da ngaa dóore yóbbaati ardo yow tamit ñu dóor la yóbbu la ardo dañ ko dóor mu dem ardo dañ ko duma mu dem ardo ay waay demante ardo demante ardo demante ardo waay bi sifle na waat ar bi sifle na waat Laurent Ndiago dem na ardo ba ñëw dem na faju ji bu Siteu daf ko duma mu dem ardo dafa duma waate ñu duma ko tey ña ngay lew too waat bu Siteu bu doon maay man biir géew laay bëreeg moom ña ngay takk téere da ngay tekki téere yi di sànni rek li takk daa bari Laurent Ndiago wàññi na 4 kilos de téere tekki waat sànni waaye lii lañ la sant da ngay tekki di sànni di dagg di sànni maa xalaa yaram bee diis dañ ko duma ba yaram bi tàng jër jàppante nañu ñoom ñaar bëree day feeñ bu si da Laurent bu si moo ñu wan kanam Laurent Ndiago à droite yoo dugg sama gémmiñ attention o oh, yoo yooyu dañuy dugg ci gémmiñ moytu leen buñ la duggee dañuy màtt sa laamiñ wa mu dagg te ñun suñu liggéey mooy wax jàppante nañu loxo waa prise bi rafet na trop neex na ma trop attention bu Siteu daf ko bëggoon sànni daf ko bëggoon wéyale Laurent Ndiago bu Siteu ña mbapat ñoom ñaar ñu mbapat ñoom ñaar xaaral ma wàññi sama volume man tamit li may yuuxu metti na jàppante nañu ay baaraam ñoom ñaar tegante nañu ay bopp bu Siteu jël na loxo gauche bëggoon teg ci ngemb mais Laurent Ndiago may ko ko léegi roof ko ci kanamu Senghor yi jàppante loxo suñu côté yeneen loxo yi di liggéey bopp yi di bëkkante di riisonte waaw riisu laa wax waaye bopp yi riisonte ku nekk di dengeñ sa morom ak jegante bopp arbitre baa ngi wër si combat bi la bokk arbitre baa ngi jaabante di cokki cokki bu Siteu ak Laurent stade bi su feesee tey bokk nañ ci à 80 pour cent arbitre àtte na kan mooy dem ardo e bu Siteu e e bu Siteu deelu na e bu Siteu deelu na sa yoon nekku ci nee na arbitre Laurent dafa war a dem ñoom ñaar ñëpp ardo waa lii tey bëree ardo la bëree ardo yi bëree ardo ay waay bëree ardo ñoom ñaar yëpp a ngi demandoo di jaabante ardo di faju rek ñoom ñaar a ngi faju rek ña ngay faju ji rek arbitre woowaat na leen sifflé nañu arbitre bi sifflé na ñu ngi toowaat ku nekk ñam na sa morom dem ardo ñam ñamaat ku nekk ñam nga sa morom ñaari yoon mais bu si da ñetti yoon lañ ko yóbbu ardo bu si da ñetti yoon ardo Laurent Ndiago ñaari yoon raak temps bi jeex na mi-temps nañu jeex na ñu xaar deuxième def ngeen fi lu saf sap. bu Siteu dafa sonn teg nañ ko ci banc bi ci bi lora toog na ci kaw banc bi banc wu bi la toog ci chaise bi la toog Aline Gueye di ko conseillé xolal ñëpp ñëpp a koy conseillé. léegi nag xaw nañoo set tuuti ndaxte ku nekk wàcce nga lu mat soixante-dix kilos ci ay téere yoo takkoon mu dese la trente kilos wala boog wala quatre vingt kilos lañ dindi waaw mu des dix kilos wala quatre quinze kilos mu des cinq kilos waaw li ñu def seen digg rek mën na ñetti kilos moom. Laurent Ndiago moo féete à droite mu sida à gembo ngemboo ngemb bu xonk Laurent Ndiago ngemb ban xaw ma ngemb bi couleur ban la est-ce que du ñuul. attention Laurent Ndiago ak Bou Siteu nañu seen garde ña ngay def déplacement même pied la ñu jiital Laurent na tey Laurent xeex rek la ëndi tey Laurent dama gis ne ay sàcc na tànk ba waaye jeex na eh, eh, eh. allah nakira wa faraja wee pep pep pep sànni sànni tànk sànni tànk rocci sànni rocci sàcc rocci bu Siteu ay Laurent tey joom mi nga de Laurent dafa sàcc daag arbitre arbitre puusal ah arbitre moytul balaa ñu lay dóor voilà bu Siteu bu Siteu ngemb bu cuub la léegi gis naa ngemb bi comme wan na ma ginnaaw attention Laurent Ndiago ngemb bu cuub bu Siteu a ngi dóor ay uppercut ma ngay dóor ay uppercut Laurent Ndiago fay na Laurent bu Siteu da la bëgg a ba pare bëre loo la da nax la. barki sëñ bi dalaa bëgg a xeexloo nax la dalaa topp xeex bi léegi bëreel a ah, waay a ah, a ah, a a lii lu mu lii mu lii mu yaay day lallaa woo eh, waay affaire jinne ak affaire seytaane la fi def Dora Ndiago mooy mooy saay-saay pire mais bu Siteu nag xoolal dafa mel dafa ànd ak xelam bu Siteu tekk la def di ko xool rek daanaan la ka mu tuddee boppam la e eh, eh, eh, noto sigi e noto <laughs> nooto nooto nooto nooto bu sida da lay ubérkit dóor nga daanu de da nga daanu bu sida teg na ko bopp bu sida a ah, caxabal wo pép pép wooy lay lay la laa wooy Laurent Ndiago caxabal na ko waay waay waay yëfi jinne yëfi jinne yëfi jinne jinne oh esprit fair play oh xale yi fair play nañu esprit fair play entre bu Siteu waay waay waay waay waay waay waay waay ay waay ndeysaan ndey ndeysaan regardez ñi ñooy ay supporters bu Siteu fair play ay waay ndeysaan ànd nañu ñoom ñaar ci supporters bu Siteu ak Laurent Ndiago Laurent Ndiago dem na si ay supporters bu Laurent Ndiago dem na si ay supporteru bu Siteu encouragé leen ñoom ñaar ña nga toog. Mawɗo jiinilam, haa biɗe rafina sofe.